Momar euh, Dieng Diop euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Momar euh, Dieng Diop nga nekk sénégalais boo xam ne yaa ngi dund Espagne fan yi ngeen ne da ngeen a am ay jafe-jafe pour mën a am ay documents administratifs si yaatal est-ce que mën nga ñu expliquer li xew exactement lan la. waaw ni nga ko waxee rek noonu la ndax jamono yi nga xamante ni moom la nekk nii sénégalais yi nekk ci Espagne ñi ngi am ay jafe yu dara dara ci wàllu passeport. ndax umpale wu la ne boo nekkee Sénégalais de l'extérieur nga am problème mu passeport da ngay am ay jafe-jafe ci wàllu par exemple boo waree renouveler sa kayit wala boo waree wut carte de séjour wala nga mën a wut ay prestation sociale ak ay wala lu nga demee ni ay nationalité yu demee noonu donc yooyu yëpp ma lim noonu balaa nga koy mën a commencer di ko wut foog lu ñu da nga war a présenter un passeport en cours de validité fi nekk nii nag jafe-jafe ñu ngi toll ci ay jafe-jafe ci boobu. wax dëgg yàlla ñuy sàkku li nga xamante ni mooy autorité yi ñu jéem a mi nu mu gën a gaawe Euh, situation boobu depuis kañ la ngeen am jafe-jafe pour mën a am passeport. waaw euh, di wax naa ko léegi ci nasaraan que ñun suñu consulat bi dafa nekkoon consulat bu ñu ràññee ci wàllu traitement des dossiers de noo compatriotes. ndaxte wax dëgg yàlla dañ cee farlu lool mais profité également ci occasion bi di féliciter di remercier bépp liggéeykat bu nekk ci consulat bi à sa tête le le général. ak le vice conseil Demba Dia ak ses collaborateurs yi nga xamante ni ñoo ngi consulat bi ndax boobu léegi ñu ngi koy wéy de main de maître te wax dëgg yàlla lii nga xamante ne nag situation la bu ñuy dund à leur décharge ñoom jàpp naa ni ñoom duñ dara ndax la nga xamante ne waroon nañ ko def def ko mais li nga xamante ne mooy problème mooy dafa am pénurie de talent pénurie de talent bi ne nekk au niveau de l'Espagne mais c'est au niveau du Sénégal te jàpp ne gouverner ndax ñun ñi nga xamante ne nekk fii di suñu doole li nga xamante ni mooy tax su suñu nekkin mën a neex suñu nekkin mën a mucc ayib mooy ñu am passeport ba nga xamante ne ëllëg si biir ko def euh, bi ngeen amee jafe-jafe yooyu est-ce que autorité euh, consulaire yi nekk foofu ban explication lañ leen jox est-ce que euh, wax nañ leen loo xam ni tegu nag moo tax mënoo leen a am ay documents administratifs rawatina passeport. waaw bi mbir mi amee aussi wax dëgg yàlla jokkoo naa ak le consul général. Et j'en profite également pour saluer son sens d'ouverture, son esprit d'ouverture et également son, sa volonté de trouver des solutions ndax bi mbir mi amee sax mi ngi doon délivrer des certificats pour wax suñu mbokk yi nga xamante dañoo nekk ci ay jafe-jafe pour au niveau des des des commissariats de police ñu mën leen a simplifier li nga xamante ni mooy seen seen euh, euh, formalité ñuy def foofu waaye dafa fekk ni formalité ñuy def passeport bi dafa indispensable loolu wax dëgg yàlla jéego yooyu def na ko mais aussi il faut reconnaître également li nga xamante ni moom la ci waroon a def moom def na ko ci ak say ay ñooñam waaye dafa fekk ni daal passeport moom dafa nekk élément boo xamante ni dañ koy wax ni am na ay jamono ki nga xamante ne moo nekkoon le secrétaire d'État du Sénégal Moïse Sarr na woon ne passeport yi dañ koy yokk dix ans mais boobu ba léegi passeport yi ñoo nga fa ñu nekkoon di wax ni gouvernement Sénégal na bàyyi dig yi muy dig Sénégal yi di nga xam ne nekk Espagne du ko def parce que li dañoo sonn ci digg te digg yi ñuy dig dëgg yàlla mosuñu leen concrétiser la en mooy bi nga xamante ne président Macky Sall ñëwoon na en deux mille quinze fii ci diwaanu Espagne mu ñëw bu njëkk ñëw mu mujj waxoon na au niveau de Barcelone dina fa implanter un consulat boobu ba léegi aussi on peut dire la montagne a poussé d'une ndax moo li nga xamante ne mooy consulat bi ba léegi nee euh, léegi à part euh, jafe-jafe yooyu pour ngeen am seen passeport euh, amoo leen beneen jafe-jafe fi ñu toll nii yéen sénégalais yi nekk Espagne. mais bien sûr bien sûr am na ay jafe am na ay jafe-jafe comme yan li nga xamante ni. mooy mooy ñun suñu nekkin fii dafa aaju aussi ci coopération bi nga xamante ni moom moo am diggante Sénégal ak Espagne parce que am na ay accords yu nga xamante ni Sénégal signé woon nañ ko ay jamono accords yooyu ba léegi mi ngi dormir au niveau des tiroirs loolu aussi day participer si suñu ay day gën a yokk suñu ay jafe-jafe lu mel ni la double nationalité lu mel ni la convalidation des diplômes lu mel ni li nga xamante ne mooy permis de conduire yooyu yëpp am na su yeneen dëkk yu nga xamante ne lu mel ni Maroc bi ñu gën a jege am na accord yooyu au niveau de ak Espagne mais ñun amuñu ko chaque fois dañuy wax ne dañuy def dañeen seen des accords dañuy seen des accords la dernière en date barki démb au niveau de Fuerteventura la ñuy organiser li nga xamante ne mooy Afrique Agua muy forum boo xamante ne intervention internationale ñu ci waxtaane li nga xamante ne mooy énergie renouvelable ak wàllu ndox ñun Sénégal dañoo am ay jafe-jafe ci wàllu énergie am ay jafe-jafe ci ndox mais ba nga xamante ni invité nañ suñu autorité war leen a jëlal billet d'avion war leen a jëlal carte de restauration a jëlal amul benn autorité buñ ci wuyu dama bëgg fi ñu toll nii ñun ñi nga xamante ni ñooy autorité ñi nga xam ne ñun ñu sommes des ñun li ñu ñor mooy Sénégal ñu bàyyi vraiment mhm. euh, ñu laaj la aussi si wàllum euh, mbëkk mi fin fan yi gis nga ni euh, bari na jeunes yu bare bari ñu ngi faatu si géej gi ñu ngi jël gaal yi utali Espagne naka nga gisee phénomène boobule. waaw li ñu njëkk def rek di ñaan yàlla suñu mbokk yeeg suñu nijaay yeeg suñu tante yi nga xamante ne ci gaal ci géej Eh, yàlla xare leen àjjana ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di fàttali rek li nga xamante ni maître Alioune Bari Cissé daal na ko wax toujours bu fekkee amuñu politique de jeunesse jeunesse bi bu fekkee amuñu ci jàpp li ñuy mën a def rek mooy daal dem mbëkki dem defi mbëkk te mbëkk bi solution Europe nekkul Eldorado fi mu toll nii li nga xamante ni moom mooy moom mooy deeti bi kenn waxu ko lii ñëw rek la ñuy wax kon nañu xoolaat li nga xamante ni mooy politique bi nga xamante ni ministère de la jeunesse def à l'endroit des jeunes pour que asseoir une politique ardue de jeunesse bu ko defee jeunes yi am ci lu ñu jàpp créer des centres de formation boo xamante ni jeunes yi am formation requise pour vraiment affronter le, le le ce que jeunes yooyu aussi euh, jàpp ni coûte que coûte bu ñu duggee Espagne seen rêve dafay réaliser wu est-ce que souvent ñoom bu ñu yegsee ñi nga xam ne yegsi nañ euh, lan moo leen di xaar foofu yan conditions la ñuy dund exactement. waaw di wax ne ñun duñu duñu encouragé li nga xamante mooy l'immigration irrégulière ñu ko tuddee mbëkk Europe ne Eldorado comme ni ñu ko doon wax Europe du yore ngay ñëw da ngay for il waa yow yaa ngi toog jël sa bakkan di ko jaay di ko tayle ci géej gi da koo jarul parce que boo ñëwee aussi da ngay nekk ci ay jafe-jafe pour nga mën a liggéey il faut nga am une formation qualifiée nga mën a liggéey il faut nga am carte de séjour or la loi espagnole daf ni nit pour mën a liggéey dina démontrer que ni dina dina ans te trois ans yooyu pour nga mën koo démontrer pour nga am certificat de résidence certificat de résidence pour nga mën ko foog nga am passeport loolu yëpp mu nekk ay jafe-jafe bu ñu ñëwee dañuy nekk ay situation dañoo constitué en association pouvoir rouge mi ngi fi lu mel ni fondation CEPA mi ngi fi bu ñu nekk la nga xamante ni moom fal doole toll dañu leen jàppale wan leen fi nga xamante ni moo yoon wi ba nga xamante ni situation seen xel dal na ñu doog a dem fu ñuy dem di wax ni aussi bu ñu ñëwee aussi ils ont mille chances de retourner parce que le président Abdoulaye Wade en son temps dafa signé benn accord entre le Sénégal ak gouvernement que bépp sénégalais bu nekk en terre espagnole nekk un document nekk sans document nañ ko delloowaat loolu aussi situation la boo xamante ni suñu mbokk yi hmm. ndax koo dëkk Côte d'Ivoire bi ko delloo ku dëkk Mali bi ko delloo ku dëkk Burkina bi ko delloo mais ku dëkk Sénégal aussi dañ koy delloo ndax président Abdoulaye Wade en son temps moom moo Hmm. est-ce que jàpp nga ni état bi li muy teg di wax wàllum entrepreneuriat est-ce que entrepreneuriat solution la pour téye ndaw yi ñu bañ a euh, ñu arrêté jël mbëkk mi. l'entrepreneuriat solution la bu fekkee ni aussi mettre nañ aussi à profit les dispositions concomitantes à l'avènement mais bu fekkee dañ koy wax rek mu nekk mu nekk mu nekk ay waxi kese wax ji dañ ko war a l'acte doit être joint à la parole. li nga xamante ni moom lay politique di wax toujours naan emploi bi emploi bi mais emploi bi dafa nekk seulement de no de façade na nekk quelque chose bu nga xamante ni bu dañ ci teg seen bët gis ko bu ko defee aussi ñuy rémunérer dans les comment li nga xamante ni moom moo ci war pour mën a vraiment retenir les jeunes dans leur terroir respectif Mhm. dernière question euh, Momar moom mooy euh, fileeki ñaari weer euh, danañu am njiitu réew bu bees yéen ñi nga xam ne yéen a ngi dund ci diaspora bi lan ngeen di xaar ci njiitu réew boobu. waaw li ñuy xaar ci mbir njiitu réew boobu rek mooy mu fulaal fayda li nga xamante ne mooy Sénégal yi de la mu mu mu mettre sur une politique migratoire parce que ñun actuellement nii suñu gouvernement yi fi jaar yëpp dañuy def pilotage à vue en ce qui concerne la politique il agit suivant les événements et les circonstances loolu nag jaaru loolu la kiiwul jaaruwul dina jaaru ñu dégluñu dina jaar ñu waxtaan dina jaar ñu retrouver autour d'une pour discuter et de prendre en charge les préoccupations de la diaspora dans sa composante globale. voilà kon Momar euh, Dieng Diop ñu ngi lay remercier en tout cas bu baax a baax ci euh, tontu bi nga tontu suñuy laaj ci sa disponibilité. jërëjëf merci Momar Dieng Diop ñuy fàttali ni euh, Momar Dieng Diop euh, bokk na ci sénégalais yi nga xam ne ñu ngi dund foofu ca Espagne ci diaspora bi ñu ngi koy remercier bu baax a baax.